Bienvenue sur Salam Vision. واستر لا واجبرنا عربي الله اغفر لأمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bisimilahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzubillah bisimilah in waliyallah mbokk internet yi nga xam ne yéen ñuy lu ci jotaayu xam-xam bu réy bi mbégte la ñu am tey dellu si waat ci beneen numéro seet si waat suñu jigéen macha allah suñu xarit kenn koo xam ne tamit doon ku ñuy présenté ndax buñ ne soxna Mariama si mu Serigne Babacar xel yëpp day daal di daaw am fu mu jëm ba tax na tey ñu seet si waat ko bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam rawatina ci li nga xamante ni mi ngi ciy yëngu ak tam gëj a gisee gëj a génn bi nga xam ne gëjoon na ko génn tam lu ko waraloon. ni ñu def rek mooy dañ koy dalal ci biir jotaay bi rek daal di nuyonteeg moom bàyyi ko mu nuyoog askanu Sénégal waaye rawatina mbokk internet yi nga xamante ne ñu ngi ñuy teewlu jamono bii ñu toll nii tamit kon soxna Mariama ñu ngi lay nuyu di la bi macha asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu nuyu waa Sénégal di nuyu waa àddina di àddina war ngeen képp hmm. taala di nuyu itam këru kër diine yi ëttu kër diine yi ñu leen di nuyu di leen di ziar di leen di jox seen wàccuwaay di yeesal suñu njëbbal ci ñoom hmm. waaw di leen di massaw nag coono gi nga xam ne ñun ñu bokk ñu ko mu taxaw xew-xew boo xam ne nee naa waa Europe sax ñoo ko gën a dund ko ñun ñu nekk hmm. ndax ñun ñuy nemmeeku ñu ñuy laaj ñu li xew Sénégal ak li ñuy dégg xam nga mm-hmm. boo fi nekkul day doon kumpa ci yow moo tax ñu ngi leen di jéggalu di leen di yal mm-hmm. na yàlla sotti ci ndox mu sedd yàlla defal mu jàmm defal lay bisimila mm-hmm. di kontaan di lay ziar di ziar sama doom ci Samba di kontaan ci yéen di leen di béggee macha allah jërëjëf soxna Mariama Sy ci nuyoo bu am solo boobu macha allah rabbi bëtte la ñu amaat ndax gëjoon xam naa ne foofu laay dooree suma waxtaan gaa ñi dañ ni fan la soxna Mariama Sy dugg ndax dafa dugg xëlwa wala euh, yitte yi nga xam ne mi ngi ko nekk di ko saafaraal jaami yàlla yi ci la nekk ndax gannaaw moom mooy xaritu waa bitim réew waaye mooy xaritu góor ñi man leen baax na loolu moom day doon question boo xam ne xam naa ne rek dinañ ko boole ci suñu jotaay tey waaye comme yegsi nañu ñu tàmbalee ko rek fi mu nekkoon waxal askan wi fan nga nekkoon ak lu tax ñu gëj laa gis ndax loolu la ñëpp di laaj fi mu nii. ndax nee naa bu mm. ñu gëjee gis. liggéey bee ñu tënk taal. Mm. ndax am na jamono joo xam ne dañuy xate lool. Mm. du suñu coobaale bopp ndax saa su suñu sañoon. dañuy génn di wax. génn di waxtaan ak ñi xam dañoo sopp wóolu ñu am ci ñu nit yaakaar ak confiance. kon ñu jéggalu dañoo nekkoon ci ay liggéey yoo xam dafa xawoon a xate rek. looloo tax ñu gëj ñoo dégg waaye du suñu coobaale bopp macha allah. mu doon loo am solo loo xam ne dama koy faral di wax nee naa boo bëggee lijjanti fukki soxlay doomu aadama moom def naa ne boo amee jot rek fi mu tànn ka kon soxlay moom boo moytul na mu war a saafara yooyu du ñu saafara woo kon yàlla yow sax saafara war a doomu aadama yi kon yàlla na itam jël temps xool la nga cay liggéey ci anam yaa ngi koy doxalee ba seeni borom tam mën a gis résultat ndax nee naa jotaay bi li ci ne kenn ku ci ne kuy woo soxna Mariama wala muy woo keneen ku mën a doon rek résultat la bëgg ci la nga xam ne moo tax muy woote waaye bokk na ci itam ci wàllu seet mu bëgg ñu indiwaat ci tuuti Mariama nit ñi ci seet gi saa su ne dañ ci am ay confirmation yu ñuy jox sa diggante ak ñoom Mariama ñaata façon seet lay seet laaj naa ko fi bataay waaye dama koy laajaat tey. dëgg la Talla ñu ngi kontaan ci laaj boobu ndax saa nit ñi dañ may laaj ndax pettaaw ngay seetee. Mm-hmm. ñu ngi leen ndax comme di salaatul fatiha. Mm-hmm. waaw am fu ñu fu ñu jox kon amatuñu droit laal pettaaw. mais seet yi ñuy seet bokkul ci juróom-ñaari seet Talla. Mm-hmm. juróom-ñaari seet dañ koy seet. dañ seet ci ndox dañ seet ci bale dañ seet ci layu. denc seet ci seet yu bari daal taala juróom-ñaari seet daal dañ koy seete macha allah dañuy seet ci suuf. suuf mooy ramlu moom def naa ni mooy ramlu daan naa gis sam nga yor xool xoleetu gerte xottu gerte. waaw dañ seet dañuy tomb dañuy maas lépp dañ ciy seet mm-hmm. nga xam yàlla suñu borom la taala ñam mm-hmm. nen dañ ciy seet macha allah mm-hmm. nekk xam-xam boo xam ne suñu ko may naa xam-xam soriwul dafa làkk rek loolu loo xam ne yëpp bu ñuy bu ñu jàkkaarloo nit ki la wax li nekk ci yow te li gën a yéeme ñoo xam ne soo sax rek seen aajo faju kon xam suñu borom la dañuy sant yàlla mu doon lu am solo wax dëgg yàlla seet boo xamante ni bu leeree rek daanaka boromam dana ci jëlee tawféex ndax wax nga ko léegi daanaka dangay seet léeg nga seetal nit ba yàgg gis ci sarax bu mu war a génnee boo génnee sarax bi rek daanaka suñu borom daal di saafara la nga xamante moo nekkoon ay mbooleem ay yitteem euh, mais ñu bëri dañuy laaj est-ce soxna Mariama ci yëngu bi nga xam ne yaa ngi ci nekk nii est-ce que dafa am ñu ne sa ginnaaw ci wàllu alxuraan wala est-ce que Mariama mooy ci wàllu alxuraan waaw Talla loolu dama ci sant yàlla di sant Cheikh Moustapha Dieye. Mhm. ndax dañ naan doolee jën moom sama kilifa. ndax dëgg man ci mbirum sunguf ak ci loolu laa ne ñëw bu may alxuraan moo ci jàpp mooy sama wéeruwaay. Mhm. ndax moom mooy sama sëriñ mooy sama xalifa général kon mhm. bi yeggee fenn fi rek yàlla ak jëmmam moom ma wax. di koy cité mun ma wax di koy fàtte faa ma cité ko sant ko gërëm ko ndax itam sànq yaa ngi naan mooy xattu góor ñi loolu wax day dëgg te lépp moom la ndax taalal jigéen boo nekkee ci buum jaambur mhm. di waxtaan ak ay góor. sa borom kër moom la neex it moom moo la ci yaatalal sa wàllu liggéey. Mm-hmm. ndax am na noo xam ne xëy na bu ma ko tënkee woon du ma ko mën a defee noonu. kon ma koy sant Dieye Massamba. Mm-hmm. di ñaan yàlla mu tumb te yàlla yokk na xamam ci barke Seydina ci wàllu moo ko jox waaye man wàllu sungu. Mm-hmm. wàllu jàpp wàllu moo am ko taal ñun suñu maam ay pël lañu. wala loolu danaa ci ñëw foofu noonu danaa ci ñëw. ay pël lañu jàng ak moccu taal. waaw allah. moom lañu gën a jàng kon nag lépp loo xam ne alxuraan la rek ci moom moomu surtout woo maam Rawane Ngom. moom moo ñu mhm. ci jàppale mhm. koo xam ne yaa ngi dëkk foofu ci mhm. mm, xel day dem ci moom ndax wax dëgg yàlla suñu wëllëre la sunu mbokk la wax dëgg yàlla suñu suñu suñu lu bari seq nañ lu bari moo doon itam koo xam ne saa su li may faral di wax nee naa moom wax dëgg yàlla li nu bokk moom ko bokk waaye lam tey sàmm ak lam tey sàmm itam ku ne ma koy sàmm ndax dund nañ ci ay jamono yoo xam ne ci ay xat-xat yu kenn mënta wax wax dëgg yàlla bokk na ci ñu ñu doon dégganteel saa su ne te wax dëgg yàlla wama shahidna illa bima alimna rusuñu ko wax rusuñu koo nettali ndax day dëgg itam moo tax macha allah kon ñu ngi koy nuyu moom it de passage di ko ñaanal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci barkeb maamam sunu maam allah ji rawaan yàlla sama borom gën a dëggal taxawaayam te yeggali mbooleem yéene yi nga xamante ni naalal na ko askan wi waaye naalal na ko itam bitim réew ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam soxna Mariama yaa ngi koy wax léegi ba xëy na bokkoon na ci question mel noonu jëm parce que ñu bëri dañuy wax soxna Mariama si nu mu bokkee doonee surtout sëñ Babacar si ba noppi wàllu wi wuyu si ko man leen li leer ba leer mooy Mariama man xam naa ni dama koy dégg soxna Mariama dama koy dégg muy làkk beneen làkk bu dul olof kon nag loolu xanaa mooy wane ni kon sa maam pël yi fa nga jëlee loolu kon xam-xam bi daf ci bëri loo xam ne kon su ma déggee bu baax da nga koo doon ba noppi ñëw gëstu si waat. waaw mhm. moom ñaari cër. bokk naa moom sama wàllu baay bokk ak moom sama wàllu ndey boo déggee sama wàllu ndey sama yaay. Mhm. maanaam sët la ci maam Fawar Doyle. est-ce que xam nga ñun. Euh, du loolu loo xam ne dama mhm. bokk ci kër gi dañ cee xuus dañ cee juux te loolu yëpp nag mbirum yàlla suñu borom la waaw sama papa du lim sant si rek mais ñun ñëpp surtout Samsudin lañu. Mhm. fa maam Maodo meññee commune ñun fa lañ meññee ko fa lañ bokk kon macha allah kon xam mhm. nga loolu mbokk la sidit la reer mhm. la. boo déggee mbirum pël si sama côté yaay yi itam sama yaay yaayam. mooy pël. moo tax ñoom côté boobu nag booy xool en général. xam nga pël dañoo bëgg wàllu jat. <laughs> wàllu suuf ay fas ak ay suuf ak sunguf yoo. waaw ci loolu sa maam sa loolu la daan liggéey. loolu da ko daan ba mbir muy ci muy si ko si xam nga li ci liñ naa olof naa la ca maam sëtu koy jël waaw te boo amee xam-xam boo ne sa maam laa ko doon ne dañ naan ndax maam rek mooy kii mais lu bari jox du jox yaay mm-hmm, mm-hmm. fa lañ doon xam-xam ndax itam sama côté papa yi sama maam jur sama papa saraxule bu jigéen mm-hmm. jur sama papa saraxule la te ñun tam dañuy làkk saraxule damay làkk pël damay làkk saraxule ndax nee naa ñaari dret ñëpp lañu bokk dañoo bokk ci pël bokk ci saraxule bokk yi ci tukkuloor suñu maam boo xool sam su moo fi tudd léegi naar la. Mm-hmm. taala kon ñun ay métis la ñu. am alaaji ñun boo xoolee ci alxuraan ñun sant ñu si. ñun ay dara lañ sant. Mm-hmm. kon loolu yëpp xam nga mbirum yàlla suñu borom la. Mm-hmm. ndax du ku nekk yaay natt fi ngay juddoo yàlla moom mooy xool. fa mu soog mu daal di fay juddoo taala. parce que de passage maa ngi nuyu sëñ Habib Sy. maa ngi koy ziar. Mm-hmm. di kontaan ci waxam. Mm-hmm. di kontaan ni mu taxawee ci askan bi ndax taal. Mm-hmm. nee naa ñun ñëpp suñu bët dafa xonk. waaye bu ñu ay waxtaanam dañuy gën a dellu ci yàlla. gën a dellu ci maam Abdou Aziz Sy Dabakh. ndax fan yi jaaxle nañu triste nañu tiis nañu te taal xam nga gën a jaaxal. waaw dugguguñ ci question boobu mais sama yaram dafa daw mhm. sama yaram dafa daw dama jooy bi ma dégloo sëñ Habib lépp mhm. ma naqari woon neex na ma taala mhm. ndaxte biñ ko xoolee ñun ñëpp xel yëpp dafa demaat ci maam Abdou Aziz Sy Dabakh daa mel ni maam Abdou moo ñëwaat kon taxaw na taxawaayu waajuróom bu góor kon sëñ Habib yal na yàlla yokk leer yàlla dëgëral ko xamuñu ko lu dul ci dëggu ndax itam suñu sëriñ la ñu doon ay taalibeem ay taalibeem rek la ñu doon si démb ak wuna waaw kon dañ koy ñaanal yal na yàlla yokk leeram yàlla dëgëral ko. yàggal ko fi ne naa bu ñu ko déglu woon. daay du am lakk du am toj du am. mais déglu wuñ ko taala ñun nag déglu nañ ko ñun ay taalibeem ay soppeem murid yi déglu nañ ko xaadir yi déglu nañ ko ñëpp ko déglu ko nit ñi nit ñi nit a déglu nañ ko nit ñi déglu nañ ko ndax taala bu wax jëlee nañu xool dañ ci amal solo. te defe naa lan wax yëpp amal nañu solo. wallaahi la ci mm-hmm. yal na yàlla dëgëral ko taala. amiin yaa rabi ne ñàkk nañ ci mm-hmm. waaye xam nga ko man ak yow on est ensemble. Mm-hmm. ñoo far il fallait que ñu génn wax. ndax nee naa koy wax ci actualité. te lii bu amee. dañ cee war a wax. ndax taal ba Macky Sall di fam. dañoo tëdd guddi ñu wàññi ko ñu toog. wax ko amut voix. ba ñëpp dañuy déglu ñu ko ba bañ a def mu fàllu. Macky sukkarul suñu café. Mhm. Macky nee naa xanaa yaramam du daw ba gis di fi am taala. Mhm. képp ku jur sa xol tooy na. Mhm. képp koo xamante ni citoyen nga dëkk Sénégal sa xol tooy na. man démb bi ma xoolee France gis ñu Mars Tall dama jooy. gis Italie Mansour dama jooy. ndax mm-hmm. ah, ñoom ñun ñëpp benn lañu taal. Mm-hmm. Sénégal ñu naa parce que ay sénégalais fa nekk itam kenn ci jàmm rek. Mm-hmm. ñun nekk ci salaam. coow lii taal ak yàqagul. nañ ko fi yàlla yemale. yàlla sotti fi ndox mu sedd. mais sénégalais yi ñoo fippu Macky Sall nag man yàlla la neex de waaye man gisuma mu yeggale ko man soxna Mariama Sy gisuma mu yeggale ko taala. dëgg waay soxna si. <laughs> non non gisuma xam nga li tax. taala Macky dañ ko jekku ci wàllu baatin. jekku ci wàllu xam-xam jekku ci wàllu mystique ñun ñu révolté xam nga li tax ñu révolté. Mhm. Macky Sall day déglu ñoo xam ne ci parteem lañ ne koy gasal camp di koy digg sërëxal. Mhm. mooy ñu lay jiital fakkatal la. waaw jiital fakkastal la. Mhm. te ñu ko wër ñëpp. cent pour cent bu dee cent pour cent yëpp taal ñu ngi koy fakkastal wala quatre ñu ngi koy complot ñu ngi koy def pexe yoo xam ne billaahi bés bu daanoo ci pees bi taal Macky day am problème naka noonu laay wàdd ca élection yi. Mm-hmm. moo nar a dal Macky Sall. te Abdoulaye Wade bosam sedd na. Mm-hmm. ndax nit ñee ko fal may nañ ba mu yeggale mandatam. Mm-hmm. waaye Macky man de gisuma mu yeggale mandatam moo tax na góorgóorlu. kon fi ne démissionné démissionné bii xale yi di wax ne na démissionné kon da nga xalaat day démissionné wala. te foqet sax boo moytuwul loolu laa gis xam nga li ma gis foqet taal. nit ñi ñoo fipp. Mhm. nit ñi ñoo sonn ñoo jaaxle. daal mhm. la couvre-feu kooru daaw la ñuy couvre-feu. un an waaw un an ñuy couvre-feu bi tëj. un an bi teg na ci borom kër sa xam nga la. Mhm. xam nga sa yaram lan moo tax muy daw. corona bii war na fee jeex bu yàgg. mais corona bii mënu fee jeex ndax xam nga lan moo tax. nit ñi dañoo am problème. Mhm. nit ñi dañoo sonn nit ñi dañoo triste. Mhm. te nee naa feebar boo xamante ne balaa bu fi yàlla wàcceel. Mhm. mais nee naa feebar boo xam ne nit ñi booy xool daanaka ñoo ko créé. ndax xam nga lan moo tax créé créé la. maanaam diggante ñaari dëkk yu amoon problème daal ñu créé feebar feebar boobu nag moo fi indi moo tax bu ñu naan balaa. balaa la melu yàlla xajul ci doomi aadama. loolu dañoo war di sóor. dañoo war di sóor. doomi aadama yi nga xam dañoo toog fi wàlliwu yàlla yi bu ñaanee mm-hmm. seen benn bisimilah mm-hmm. nara seen benn fatiha mm-hmm. barki Seydina Mohamed si moo nee na benn peru salaatul fatiha bu mu taxe sa soxla taggal sa pour si barka Tidiane ah isbu yi isbu yi li ñuy xëy di koy jàng ay xasida ci jeex na fi ñuy durus ci ay kaamil tamit ñee bala ngay toog di ñaan yàlla na fekk sa biir fees. Mhm. na fekk sa xel dal saa yu xëy yaa ngi daw di wuti loo am yow 6 heures du matin taala. bare 21 nga daw dem dugg sa kër taala amaana loolu ngay ba doo tal ñaan. Mhm. doo tal ba talal sa loxo ñaan yàlla ni mu waree. Hmm? Mhm. kon yooyu yëpp Macky Sall waroon na toog fii alxuraan moo ko samp. ñun dañu am suñuy principe. daara yi dañ ko dëggal fii ci dëkk bi. daala Iran Ndao tey suba dama ko déglu mhm. mu naan bañ tooñee sëriñu daara yi pourtant day dëgg mhm. ndax gis nga ñoom keroog ba ñu génnee sëriñu daara yu bari ne nañ ñibbi seen dëkk bi corona bi di door a am mhm. seen xol dafa tàng ñu jël seen i kurus dugg seen i rukuñ ñaan yàlla mbas mi dafa gënoon dafa waroon jeex bu yàgg nii dafa gën a yokk ñu naan di jooy di taal nit ñi di jooy mbas benn musiba ñëw daanu suñu musiba bi moo gën a raw moo raw mbas surtout ndax Macky Sall nit ñee ko fal carte mm-hmm. ko fal carte mm-hmm. ko waroon a folli mm-hmm. kon bu nit ñi amee problème jiixi jaax nit ñi na mu toogoon ba ne fal leen ma bu ngeen ma falee lépp lu ngeen bëgg dinaa ko def kon bu nit ñi nekkee ci fitna dafa war a toog waxtaan ak doomi aadama yi population Sénégal ñoo ko fal taala ta xeex bi li ma ci gën a métti gisoo ci kenn ko am 40 ans 18 ans 19 ans te commencé ko 11 ans rek 30 ans ñoo toll ci voté ñoo lay fal ñoo lay sa dëkk di tàkk koy fay sëñ bi murid bi génn na wax. Mm-hmm. kilifa diine yëpp génn nañu wax daal mm-hmm. te wax rek la ñu mën. Mm-hmm. moom nag moom moo ñu jiite ñun ñëpp ñu nangu ko lool nag muy suñu président. muy suñu président. ndax am na yoo xamante ne jamono yooyu waxoon naa nañ jël ay classe yu bari tuur ko ci géej. ndax am na benn xew-xew bu war a bu ñu ko defee yàlla dina ci def jàmm. def ci sala Macky Sall nag. ñoo ko santaar. Mhm. ba dëkk jotee nañ ko wax ñu ay politiciens mais dëkk bee yëngu ñëpp génn di wax. kon ñu mhm. tam am nañ droit génn di wax ndax ay citoyen lañ. mooy yoon ay doomi aadama lañ kon dëkk baa ngi tàkk Macky Sall. Mhm. kenn du la ñaan. Mhm. dañ lay poñe forcé la. Mhm. nga génn wax ak askan bi wax lu dal seen xel du idée ñuy waxal. ndax mhm. faluñu idi. idi amuñu ci man de amuma ci idi di sa fekk benn confiance. man gëmuma ko. kenn gëmu ko. man wax barki démb kii xaw ma nan Diome. Antoine Diome Antoine Diome barki démb lañ ko fal ministre ko. man xam nga lu ma gëm Macky Sall la génn wax ak population. gannaaw Macky Sall lañ faloon. ndax moom la ñu faloon. ñun ba ñuy wóolu moom la ñu wóolu moom la ñu jox askan bi. waaw kon nag 8 mars bi ñu ngi ndokkeel Marième Faye Sall mm-hmm. ndax moom liggéeyam ak taxawaayam taal mm-hmm. nit lu baax nañ wax mais jëkkëram na génn wax ak askan bi ñun jigéen ñi ñun yaay yi dañoo sonn suñu doom yi di dee mm-hmm. barki démb ba xale bi yoon buru kooram ñu rey ko ci ne génnewul manifesté wu kiñ dagg loxoom nee na moom manifesté dafa liggéey ba wàcc daala bu problème amee bu leen ci dal ñoom nag na am nañ moyen buñ demee Europe la ñu taala te olof yee danaan moo tax moo ñu baax doo mooy siin cere yi naan cere yi buur kon Macky génnal nga wax ak sa population génnal nga wax ak sa askan mhm. nga jàppale ñu xol yi fees na mhm. yaay yi jooy nañ mhm. Wally Seck tey suba ndeysaan dama ko seetaan gis mu jooy ba kanam gi sat mu ne bu jeex taal ndax comme moom Wally Seck a génn wax ak nit ñi te nga la génnal nga waxtaan ak sa population ñu génn ñëpp ay citoyen lañ mais nit ñi wax ñëpp day révolté suñu xol dafa ne tegoon moom du ne ne teggi naa ko ndax bañ lay fal man maa toogoon

droit d'auteur. Mhm. kon da nga leen war a donner information en temps réel juste et te information yi ñu wane yëpp mooy le réel. tey jii ñu ngi xool télé français yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi di génne image di ko yóbbu. di ko bitim réew. loolu waroon na signal boobu la waroon na jël mais pas signal bii. seen TV TV askan wi moom. askan wi télé askan wi la tuddee boppam Walfadjri moo joxe information nag bi leer te wóor ak seen TV yeneen télé yëpp defuñu fi dara daal ah kon nag Macky nga génnal waxtaan ak askan bi ah génnal nga waxtaan ak sa population hmm. ndax li bu dàqul fañ jëm xam te Sénégal kenn mosu dégg ci lii ndax hmm. maam Abdou doon wax hmm. waaw keroog ba euh, Abdou Diouf euh, doon tëj euh, population commencé di kos benn brin am na te waxtaan ak population bàyyi lépp mu seet kon nag Macky Sall génnal nga waxtaan ak sa population ñun politique ñu waaye dañuy ay citoyen mm-hmm. doon ay porte de porte de voix doon itam ñoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu asaraal yëngu ci wàllu ñaan bu dëkk bi tàkkul ba léegi sëriñ yi tax tàkkul mm-hmm. Mm-hmm. sëriñ yi noonu ko daara yi taalib yi fi xëy di wàccee ñaata ton da kaay alxuraan Macky Sall génn wax sa population génn waxtaan ak askan bi ndaxte itam lu ñu naan benn jigéen di taal réew déedéet déedéet aji saar nag moom man bu ma dégloo ay contribution ci laa pare ci moom taala ndax man mm. damay jigéen. jigéen amatul valeur. jigéen jaratul ci réew mi. ndax jigéen bu demee bekkaal dëkk. taala man de wax dëgg fa ne yàlla boo kii yoon bu <laughs> bu doon <laughs> dem denc rek am dama naan yàlla defoo ma sol tubéy ndax dama rus. waaw réew mu nar a tàkk jóge ci benn jigéen. day doon bu dee Adji Sarr fii Sénégal naa dootu fi sëy. dana hmm. hmm. yàqu nag bu dee ay alal la ko jaral wala lu ko mën di jaral wala bu dee loo xam ne dañ ko teg ci ndoddam yàlla rek xam. am naa ko ahlan. waaye daal Adji Sarr wax dëgg fa ne yàlla loolu nga ñu soog suñu doom yi dee nañu ngir sa jëm dëkk bi tàkk na dëkk bi booy na bitig yi tëj nañ kenn ñemeetul jaay. kon nag danga Macky Sall génn wax ci sa population daal loolu lañ ci mhm. macha allah mu doon lu am solo ku dégg kàddu gi xam ne kàddu citoyen la ku dégg kàddu gi tam xam ne kàddu gi ci xool la jóge ndax wax dëgg yàlla li muy wax itam doonatul jëmmam kese waaye li ngay toog di ko xool presse bi euh, journaliste yi médias yi di ko génnee. da ngay gis loo xam sa yaram day daw parce que man personnellement barki dem bi ñu xoolee suñu nawle journaliste boobu bi ñu ko xal bu jigéen boobu bi ñu ko dóoree balu fetal ci tànk bi fi ma toog sama xol dafa jeex dama ci gis sama bopp ëlbati ko waat ci ngoon gi nga gisaat encore sa beneen sa beneen nawle gendarmerie boo xam ne wala euh, agent GIGN boo xam ne grenade dagg loxo bi loo xam mosul am ci réew mi sa ad sa àdduna sax day bëgg a tukki parce que tey jii on est en train de bi réew mi dee réew mi ba ñu ngi koy wax métti na taroon na lool lii fi am nii mosu fi am amul woon kon il e temps ni ngeen ko waxee message bi jàll na am na solo mais man dama bëgg a laaj rek parce que comme ni nga ko waxee léegi nii gis-gis moo la mayoon ba nga gisee ni moom day jàll ci premier tour nga osé génn wax ko tey ji tam tolluwaay la bi nga gisee li nga xam ne naqari na la ci sa biir réew nga génn toogaat wax jóg bi mu fi war a jóg gis-gis la boo ci am wala njottu nga ci am wala xol xol nga ko sentiré ba xalaat ni moom jógam fi mu ne dafa jot fi mu toll il est temps que mu fi moom. trois su ma xoolee dama koy gis mu lëndëm Christ. te ñu ko sekk ñu ko war roog laa gis ñu koy lëndama. ñoom ñoo koy indi sa ndax kenn ku nekk jàppale woo Macky Sall de. boo mu ne dégg ne wiiw ak Seydina Mohamed ak yoon ci yàlla Mohamed li ma gis mooy dañ koy dégg sa xam pour bëgg Macky jóge fi ñu ko jege ñëpp. première ci Idrissa Seck premièrement moom laa njëkk gis. Mmh. ba ma defee sama listixaar moom laa njëkk a gis mën a doon touriste kon nag Macky Sall ñu ne ah nga wax sa population te bala ngay jóg di wax ak yéen njëkkee université. njëkkee mhm. université Cheikh Anta Diop nga dem baalu leen étudiants yi. Mhm. ndax ba ma xoolee xam naa ni artiste yi ñu naan ñoom ñoo lay campagne ñoom ñoo lay daane ñoom ñoo lay waxal. université bu Dakar boo fa jógee nga dem université bu saint dem fépp dem wax ak ñoom élèves yi daal waxal ak ñoom ba pare ndax gis naa ni ñoom ñoo la mën a fal ñoom ñoo la mën a folli mhm. am na solo loolu bokk na ci fi mu ne ni nga ko waxee léegi tey ji tudd nga école yi tudd nga université yi muy daara yu mag yi yu mag yi ci réew mi bokk na ci dégg nañ tey ji ministre bi daal di xëy sa daal di joxe beneen déclaration daal ne euh, na école yi ak professeur yi mboolem ju jëm ci wàllu jàngale nañ tëj seen lépp ba alxames mu mel ni kon moom dafa benn signal bu ñuy dégg alerte bu mu def ci réew mi boo xam ne ni fi mu ne jaxase na sunum xel tey ji bu ma la laajoon ne la tey ban situation ngay nooy déggee kàddu ministre bi ci li mu wax ak kàddu ministre Antoine Diome bi nga xam ne delluwul ginnaaw ci ñoom fi ñu toll ak tey ji naka la askan wi war a mën ba jàmm dellu soit ci réew bi ñett yi moom la wax laa xamul ban noo koy noo koy étudier a tàng bu génnul tey wax ak askanu Sénégal. Mhm. billaahi wallaahi suba ngeen gis lu ngeen mës a gis Antoine Diome moom mu njëkk a wax ci français dafa juum ndax fi terroriste amu fi dëkk bi Sénégal. Mhm. xaaral bu fay matul juróom ndax ñi doon xeex. Mm-hmm. am na lu ñu naan ñi gàmm ak ñi raas démb sax ci bien vrai bien vrai que rax nañ ci. mais mm-hmm. taala ñi nga xam ne dañoo jóg marché xeexal seen dëkk. waaw parce que man dama gis ñoo xamante ne dañoo jàkkaarloog homme de homme sécurité bi. cinq vingt mètres doxul seen diggante mu leer ne ñoom seen bakkeen yi pare nañ pour joxe ko. mais taala homme de tenue li nga wax dama leen di masawu. Mm-hmm. après keroog li ñu def dañoo xeexal seen dëkk. bu mhm. bëgg jàmm am ci. ñoom lañ doon jàmmaaloo askan jàmmaaloo ñoom askan mhm. dañ doon bañ bakkandee. maintien d'ordre. Mhm. dañ doon bañ coow am dañ doon bañ leer débordé. ñoom dañ doon liggéeyal seen dëkk. te it bu doon beneen dëkk ñëw li ñuy attaqué ñoom ñooy dem ñun duñu dem taal. kon ñun ñu leen di massaw. te bi nga xam ne da ci am gaañu gaañu ñu ngi koy massaw. waay bëri ko dal metti na. metti na te Macky Sall na ko massaw. ndax taale fii nii fi mu nii ñun Macky Sall la ñuy waxal. ñu waxuñu ministre waxuñu député. mais di ministre bi wax. li mu wax xam na li mu wax. mais loolu yëpp na Macky Sall wàcc rek waxtaan askan bi. Ah, ndax moom moom nañu kee Ahmed Aïdara. dañu ko poon ba ci kanamu yàlla. am na dafa weex donc. ndax ba ma ko déggee dama dee buy bëgg a dee. mais taala. GIGN yi. ñooñu ñoom yëngaluñu xam nga daanaka yëngaluñu. ñoom booy xool ray yi am ak yu bari yi am ñoom ñoo ko yëngal ñoom ñoo ko indi. ndax taala koo xam ne deful arme koo xam ne amul maîtrise nga jox ko arme pour mu génn di di di def yoo xam ne n'importe. n'importe quoi. di di di di tiire di def yoo xam ne mais taala nañu waxante dëgg. xam nga xale yi dee tey ki dee Casamance. ki dee fi mu toll ñu juróom-ñeent ñu deewagum fi mu toll buñ ko parallèle rek kenn doo laa dégg ñu dañ ko jàpp ak benn xale boo xam dégg naa dafa dugg ci ensemble ñu am lu ko kii xam nga yooyu itam taala da ngay waaru da ngay waaru benn bakkan bu tuuru rek taala yëngal na réew ko maanaam juróom-ñeenti bakkan jàpp foofu nga la président de ko république génn nga wax ak ñun ministre bi wax moom taala li muy wax xam na ko ndax fi mu doon ñëpp seen fit yi toogatu xam nga ñu toogee ba sëriñu Mbàkke Mbàkke bi génn. sëñ Abdou Samad sëñ xalifa bi. sëñ Moutaha. sëñ Moutaha Bassirou Mbàkke. yal na yàlla yokk leeram. am na yàlla waxtaan nga xam ne. yaram daw na. yaram daw na ma na dem këru ëtt diine yi dem baalu ak baalu ak population bi surtout. mu wax ak ñoom. ndax taala lu yëngu lu ne da koy yëngal ko ëpp doole te lii bu jeexul rek taala macha allah. amati na solo soxna Mariama Sy mu Sëriñ Babacar Sy lañ fegooloon ci waxtaan bi lan mooy doon message bi tey à travers ni nga ko waxee message moom président bi moom dina ko dégg moom bu soobee yàlla xanaa kay tey ji askan bi moom population bi nga xamante ni li may faral di wax dañ ne nul ne au-dessus de la loi man je dis ni seule la population et au-dessus de la loi parce que population bi ñoo fi teg loi bi ñoo fi teg ñi yor loi bi kon population bi ñoo fi teg kaw lépp te tey jii fi mu toll nii nii nii tel ni yël na ni nga ko waxee le président génn wax waxi nit yu ànd ak ay jëf jëfi message bi ngay tënkalee ci jotaay bi tey lu muy doon. yàlla suñu borom dañ koy doon di koy baalu mu di ñuy jéggalu. ma ci toogee ba dëkk bi moom moo war a génn baalu population ndax miin na parfait. Mhm. ndax buñ toogee askanu Sénégal moo mer du soxna Mariama mhm. bi Sénégal yëpp mer. mais gars yi dañ ne moom dañuy taal réew du gars yi duñu bàyyi léegi loolu ma ci a jaar. Sonko dañ war a bàyyi ndax am nga a moo tax taal. Mhm. Sonko dañ ko tuumaal. ndax ñun duñu ay dof. ndax taal borom salon de beauté bi wax na kii Aji Sarr wax na. Mm-hmm. tantaam jabaru nijaay bi wax na. waaw li ay frère am wax ñun yëngaluñu ndaxte Talla tey ji buñ toogoon ne Talla dafa bon say mbokk dañuy génn défendre la. Mm-hmm. ñun frère yi lañ wax sax ñun mm-hmm. ñu def nañ fi li fi def ñaan na ñor ñu suñu couche loolu lañ mën a def. moom moo war a génn baalu askan bi. te itam gouvernement na ko raxas. bu ko raxasul ak ci alxuraan kay Macky bi yeggale mandat bi Talla man maa la ko wax. soxna Mariama Sy mu sëriñ na nanu ko bàyyi xel ci kàdduum yooyu mu wax ndax koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, shérif nga bokk ak maam Alaaji Malick bokk ak maam Faawa di wele kooka defe naa ne doo doonu kuy waxantu te wax dëgg yàlla bi ñu ko xamee ak tey ku dee ak sa bàmmeel wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa xamuñu ko ci lu ko xamuñu ko ci naka su dul noonee ba tax na bésub dimanche mu mën ñoo déranger kon wax ji mu bëggoon a wax am na lu mu yitte lu ko yitteel lu mu bëggoon a wax te ku déglu message bi xam ne message bi am na solo te kenn moomu ko ku dul le président de la république du Sénégal le gardien de la constitution am réew boo ko yore ba réew ma yëgu da génn wax ak réew mi mais bul bàyyi ay ndaw falu ñu woon ndaw ñi ndaw ñi yow yaa leen tànn teg leen fi kon yow mi ñu faloon askan wi ne leen nga génn wax wax ak sa njaboot wax ak sa askan apaiser waat situation bi ak tension bi kenn mën a dund ci jàmm li ñuy faral di wax mooy Sénégal réewu teraanga Sénégal réewu jàmm Sénégal réewu tawféex la kon buñ ñu dugal tey ci lii sant ko leen ñuy def gëlëm ko ñaanal ko yàlla bu baax a baax moom soxna Mariama si mu sëriñ Babacar si moom nee na nañu ñaanal Sonko kon yow waasal message boobu waaw Sonko nag génn ci jàmm mhm. dem toog liggéey liggéeyam ndax borom njaboot la te Sonko kilifa la mhm. Sonko xamee wuñ ko loolu alxuraan mhm. alxuraan bi muy jàng gëm ko wóolu ko moom moo ko sauvé tey moo waral nit ñi yàlla def ko ci biir xolu ni jàmm yépp tey man Sonko xaw ma ko mais fi mu toll dama ko bëgg taxaw ma. ñëpp ko bëgg léegi beneen eh, bi eh, ko bàyyi mu ñibbi këram. Hmm. Eh, keneen ki. Clé d'Or Guy ndax Guy Marius Sagna. Hmm. li muy xeex du boppam lay xeexal du Casamance. Guy Marius Sagna hmm. war a am adversaire. Talla loolu a am mu doon. wala buuxante gi dafa neex ndax xam moo Talla nit da ngay da ngay wut koo xam ne dañ doon sa adversaire. démocratie ngay demanteeg moom ci kër ndax Sénégal dëkku démocratie lay wax dañu adversaire la amul pourtant Macky Sall ni dañu ko fale hmm. mais lay wax yëkkati lay wax teg ko fi moom hmm. tamit nag Sonko mii dafa war lay wax Macky bu demee Sonko dafa war a toog moom mooy àddina hmm. nag ñu ñaan yàlla Sonko bu président gënee ci moom yàlla ko yàlla defal allahumma te itam naam ngi wa rahmatulahi taala ngi jéggalu suñu kilifa diine yi di jéggalu kilifa aada di jéggalu askanu Sénégal bi yëpp bu dee wax nañ fi dem sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla sama borom dolli ko taxaw gën a dëgëral taxawaay bi te mboolem yéene yi mu yeggaleel ko ak sako ci daraje yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam barkeb mag ñi waaye barkeb sa ngamba Seydi Aboubacar Sy sant itam bu baax a baax internet yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu saa su ne di fëtaliwaat suñu kóllëre suñu digg ak yéen xam ni information bi ngeen soxla en temps réel rek mooy suñu ñu borom mi dul jeexal dara am lépp mën lépp sañ lépp yàlla jàpp lépp seen yite ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye jox leen daje insha allahu rabbi ci beneen jotaay ak seen jotaay bu am solo bii di jotaayu xam-xam bi macha allah jërë ngeen jëfoo واستر لا واجبرنا عربي الله اغفر لأمته Bienvenue sur Salam Vision